di nuyu ñëpp ñi fi daje village yi fi daje yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu chef de village mi nga xamante ne moo ñu dalal fii ci biir Ngombel fii nag suñu kër la te su ma nee suñu kër la rek yow xam nga lan moo tax ndax bu fekkente ne dañuy ànd ak mbay Sow di ànd ak Bilal boobu ba léegi dara ñaaw si kon fii vraiment suñ fi ñëwee suñu xel day dal dañuy kontaan ndax ci suñu biir njaboot lañ ñëw ñu ngi nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp. di nuyu jigéen ñi di nuyu jeunesse bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a euh, di nuyu waa Seeseen di nuyu waa Peeleew di nuyu waa Ngolfañi ñi nga xamante ne depuis 11h ñu ngi fi di xaar te vraiment loolu defe naa jàpp rek moo tax ak fi ngeen teg président élagement Hadj Malick ndaje bi nag waroon naa gën a mën a yaatoo nii mais xëy na heure bu ñu dugg jobaas moo waral lii yëpp waaye loolu euh, terewul vraiment ñu am contentement président. ndax fii ci samay mbokk samay mbokki jobaas dama laa bëgg a remercier président ndax yow bu ñu jàppantee ba léegi bii mooy sept fois juróom-ñaari yoon nga dugg fii ci biir jobaas bi nga créé grand parti ba léegi bii mooy juróomeelu yoon nga ñëw fekk ma fii ci biir jobaas te saa yoo ñëwee mosoo fee ñëw loxo neen chaque jour yaa ngi nemmeeku ci waa jobaas ci lan lañ nekk chaque jour yaa ngi nemmeeku lan mooy jafe-jafe waa jobaas moo tax ñun dañ ne ñu waa grand parti jobaas dañoo am loo xamante ne benn leader local amu ko fii ci biir gox bi ndax pré kii euh, candidat yi bari nañu waaye yow mennum yow yow yaa nangoo dugg Jobaas traversé Jobaas Sange jaar Jungaan jaar Seeseen jaar euh, Ngolaar jaar Kër Moori ñëw ba fii Ngombel ak yoon yi nu mu méttee ku bëgg a Jobaas rek moo mën a def loolu. am nañu candidat yoo xamante ne ñu ngi dëkk fii nii sorewuñu waaye boo leen waxee ngombel tey xamuñu fu ngombel féete biir Jobaas te yow am na dëkk yu bëri damay toog ak yow président nga ne ma naka waa Kisan naka waa Jas kon ma xam ne yow maîtriser nga Jobaas ma xam ne yow président waa Jobaas bu ñu góor góorloo ba jàppale la ba fal la nga nekk président kenn du la wax lii la Jobaas soxla ndax xam nga ba pare lan la Jobaas soxla man nag rëccuwuma benn yoon li ma ànde ak yow ndax xamoon naa ne nit ku am kóllëre nga. nit ku mën nitam nga euh, honorable ay dara wax na ko sànq mën nga sa nit fonk nga sa nit te xeebuloo sa nit mënoon nga ñu xeebal suñu jobaas bii de ndax ñu ñu xeebal suñu jobaas bari nañ ay candidat romb nañ fi te taxawuñu ay te ñu dëkk biir jobaas te xeeb biir jobaas kon nag dañ lay gërëm di la sant li nga war a wax di wala nga def ko ci biir jobaas nag xam nga ko bu baax a baax ndax lii jafe-jafe jobaas wax nañ la ko waxaat la ko waxaat la ko tey nag man duma si dellu ndax dama gëm ne yàlla bu la defee le cinquième président de la république du Sénégal balaa ngay defar fenn di nga dem di ñu defaral euh, suñu suñu suñu suñu jobaas fii may remercier nag responsable jobaas ndax opposition dafa metti waaye ba ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu ñoom bilaal ñoom Ibrahima Ndour ñoom Mbaye Sow ñoom maire filon ngi nii toog mooy suñu responsable des femmes dañ ko waroon jox kàddu mais yaram bi moo xawoon naqari mu ne ma li ma war a wax yëpp naa ko ko waxal mu ngi jóge ba village bu ñuy wax peelew mu ñëw ba fii mu ànd ak ay nitam ay nitam a ngi nii toog te ay nitam dañoo xëyoon tey ne dañuy dem liggéeyi am na ku wax sànq waa jigéenu jobaas amuñu benn activité bu ñu xëyee dañu leen di jëlee ci ay kaar yóbbu leen ñu daggi ay ay ay ay ay kii ariko kon président loolu nga bàyyi ci xel bu baax da leen fekk dafa fekk ay jigéenam ñu yéeg ci oto bay waaj a dem mu ne leen président mali gàkku day ñëw fii tey mais ñëpp wàcc ñëpp a wàcc ñëw xaar la dañoo nekk ci période du Ramadan ak période du carême ñu bëri nag vraiment daa di dem toppatoo ji seen kër mais waroon naa gën a mën a yaatu nii président lu ñu la bëgg a wax yëpp mënuñu ko wax fii ndax temps bi gàtt na mais jàppal ne am nga suñu ngërëm ñun waa Jobaas remercier nañ la bu baax a baax a baax ndax li ñu defal amul kenn ku ñu ko defal kon nag ni ñuy waxee euh, bu ñu la diggee ndekki ku la dig ndekki ku la jox ndekki bu la diggee añ xamal ne dina la ko jox te président mi gëm naa ne bu toogee le 25 mars 24 mars bii di ñëw incha allahu moom kenn du ko wax demal defi lii demal defi lii à Jobaas dina ñu ko defaral bu baax a baax a baax kon nag lu ma fàtte ci wax ji rek temps bi moo gàtt may jégalu bu baax a baax di remercier aussi waa suñu presse locale bi Jobaas info mu ngi fi ma koy remercier bu baax a baax ndax moom tamit mosuñoo xeebal suñu bës lépp lu ñu xewle duñ ko jox en franc mais day ñëw taxaw ndax moom tamit Jobaas moo ko yitteel. kon jërë ngeen jëf vraiment bëggoon nañ wax ji gën a yaatu fii mais temps bee tax ba duñu ko mën a eggali daal jërë ngeen jëf merci. Dios no te vi, no me lo olvides.